allahu akbar sortu Quraysh ñeenti laaya la waaye ci beneen nettali juróomi laaya la mi ngi wàcc Makka falyabudu rabba hada albayt alladi ataamahum min juuin wa amanahum min xawf falyabudu nañ jaamu ñam waa Makka rabba hada albayti néega maanaa borom bi la néeg te mooy Kaaba gi alladi borom bi nga xam ne ataamuhum moo leen leel min juuxi ñu tukkee ci ab xiif wa aamanahum mu wóolu leen min xawfin ci ragal li ilaafi quraychin ngir tàppug waa quraychi ilaafihim seenug tàpp te mooy seenug baaxoo rixlata tukki rixlata chitaa'i tukki jamonoy sedd wa sayfi ak jamonoy tàngoor léegoo-léeg jëm Saam euh, léegoo-léeg jëm Yaman waa Makka ñooy waa Quraysh ñooy dëkkaale dëkkandoohu néegub yàlla bi xur la woo xam ne amul bayukaay du fa dara du fa sax ca jamono yooya ñu daan kiif nag daayiman waaye aadaay Quraysh bu ñu xiifee waan amut lum lekk dafay dem ci ab ruq rek toog fa ba dee ñoom noonu noonu lañ daan fajoo ñoom ku ne xam na ne loolu metti na Hachim maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ibnu Abdu Manaaf ne leen aada ji ngeen aada woon ak baaxut jóg leen ñu seet pexe ndeysaan ñu dajaloo ñu ne bu waxtu nawet jotatee nañ génn jëm yaman wut foofu am xondo bu waxtu euh, maanaam tàngoor jotatee nañ génn jëm Saam wut foofa am xond bañ ko defee rek gannaaw loolu mooy import export wallaay ndeysaan tukki dem uti kon ñoom ñoo ko njëkk xalaat moo tax ci pexe moomu yàlla xamal leen moo tax xiifatuñu dem ba am te loolu yëpp Hachim maami yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko waral baleen yàlla layalee cib kiif nag wóolu loo leen ci ragal looloo tax kon war nañ koo jaamu te jaamoo ko ci néeg boobule même buñ ko jaamul ngir dara sax loolu war naa tax ñu jaamu ko lii yëpp yàllaa ko refal waa Quraysh yonent bi sallallahu alayhi ne lawla an axsha an yatakabbaroo la axbartuhum bi fadlihim bu ma ragalutoon ne ñoom maanaam su ma leen xamalee seen gëneel dañuy rëy konoon danaa leen xamal moos seen gëneel Quraysh aw tur la woo xam ne ñoom ñoo ko seen giir gi waaye mi ngi nekk turu benn aji yukkat ci géej nga xamante ne moom ci géej la dëkk ñu ne mboolem rabi géej gi moo ci ëpp doole ndax moom mën na daje gaal foñate ko labal ko ak lu mu rëy rëy waaye itam baat la boo xamante ne dañ ko tasxiir mooy xarsh waaye ñu eh, tasxiir ko muy quraysh gaal gum dëgmal dana la labal kana boog suñ bëggee maanaam mucc ci moom dañuy wut lu mel ni ki lumière ñu euh, jam ko ko bu ko defee loolu mooy tax du laal gaal le kon nag mooy loolu mooy Quraysh moom lañ tuddee seen giir gi yàlla defal leen xéewal googule yàlla ne bu fekkoonte ne yàlla defalu leen dara lu mooy loolu ñoom kuy wedd yàlla ñoom waruñ caa dañoo war jaamu yàlla mi nga xamante ne mooy seen borom sooratul maa'uuna makka la wàcc saaru njëfandikoo nekk juróom-ñaari laaya allahu akbar mi ngi wàcc ci aas ibnu wail umayata ibnu alxalaf abijal ibnu hisham ñi ñoo moom saar wile yàlla ne araayta soloma alladi kaaka ma nga xam ne yukaddibu bi diini ci diine a pay ba kay weddi bés pénc soloma ay xibaaram fa dalika kooku alladi mooy ki nga xam ne te ne yaddu xo dafay bimax al yatima jirim su jirim ñëwee di sàkku ci moom dimbal fa koy bimax génnee ko kër gi muy jëf ju bon wala yaxuddu du ñaax boppam waxuma laa keneen ala taamil miskin yi ci leel miskin ndax dafa nay fa waylun quru sawara lil musalli na ñeen na way julli yaa nga xam ne ñoom dañuy sàggane julli alladina ñi nga xam ne hum ñoom saahuuna way sàggan lañ an salaatihim walif seen julli ndokk ba mu wax ne a saahu waxut fii salaatihim saahuun bu ko waxoon rek maa day taali xuru sawara ñeel na ñuy julli du jullikat yi de waaye nag eh, dafa am ñum jul ñuy julli ñan alladina ñi nga xam ne hum ñoom saahoona way sàggan lañ an salaatihim walif seen julli gi ñooñu de ñoom xuru sawara ñeel na leen ndax ñoom julliwuñ dañuy ñaawalaate mooy naafeq ya ñoom ida kaanu fi salaati kaanu kusaala suñuy julli dañuy tayal lool duñu amal importance julli gi dañuy julli rek pour mucc pour dem waaye julli wuñ pour yàlla yàlla fay leen ak mucc ci sawara ak yu ko niru mokk neysan dana ñuy faral di nettali ne benn magisob koo xamante ne mandikat la gis nga ñaaw njortu ci jaama bi yàlla baaxut ma nga bàyyi ko ca euh, baar ba rek génn di kayan kayan ngi dajeeg waaji moom mi ngi julli ji fajar bay génn mu ne ko xam nga ne toskore toskore nga de nit ñuy julli fajar yow ngay bàyyi yow ngay mandi ji noonu ma lu ci yoonam de xaama ko waroon bu demoon ba këram dem waar koo konoon dana am solo waaye foofu rek moom it xam naa ne dafa bokk ci ñi nga xamante ne benn mu bokk ci aarifoona yi wala mu bokk ci ñi nga xam ne daal yàlla may na leen wala boog yàllaa ko xelal pour mu tontu kooku wan ko ne ko jaam yàlla kenn du ñaaw jortu ci moom mu ne ko maa qaala rabbuka waylun lil ula sakaro bal qaala rabbuka waylun lil musallina sa borom waxut ne Eh, eh, kuru sawara wala toskora ñaan na ñinga xamantene ñoo mandi de sa borom waxul loolu sa borom lim wax mooy xuru sawara ñaan na ñay julli xam naa àggale ko mu ne ko déet yàlla yemut foofu de mu ne ko waaw waaw yàlla tàmbaliwut saka sukaara xam nga comme bi mu tàmbali moom moo gën a jege waaye la muy tegtale mooy kuy sàggane julli kuru sawa kuru sawara mi ngi lay xaar ku julli nag alquran waxoon na fa muy tabi bu sawara la ma salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin lu leen tàbbal sawara ñu ne dañ daawul julli loolu rek war naa tax ne xamal nit ki ne kon ku dul julli sawara nga jëm ma salakakum fi saqar lam naku min al musallin hmm? usjud waqtarib fa waylun quru sawara lilladina ñeel na ñi nga xam ne lil musallina ñeel na way julli ya alladina yi way julli nga xam ne um ñoom saawoo na way saggan lañ an salaatihim walif seen julli alladina ñi nga xam ne um ñoom ba seen melokaan yuraa oona dañuy gis talu ca ñuy julli di wan nit ñi ne ñi ngi julli te fekk yàlla taxu leen a jóg wayam na oona ña tere almaagoona njëfandikoo kaaya de njëfandikoo kaay mooy soo leen abbewaan loo war a jëfandikoo caay njëfandiku dañ naan la néew fi wala ñu gàntal la totalement rek